Amis fidèles internautes, vous qui nous suivez partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai comme nous ma koy vous vous abonné ba vous bu leen faire la cloche de notification bi vous jot une vidéo tey en ce début de semaine lundi 11 décembre 2023 bi coïncide jour bi nga xamante conseil constitutionnel ou li nga xamante dépôt candidature qui a été bëgg nga battu, askan au soir du 25 février 2024. Tay le conseil constitutionnel ubbil euh, buntam bépp candidat pour xamante ce dossier man nga le 26 décembre en ce jour là bi nga 11 décembre coïncidé tay ak suñu numéro scandale du jour fit People TV la chaîne des grands événements comme nous avons l'habitude de vous le présenter tous les jours du lundi au vendredi sur la grande chaîne des euh, grands événements VIP People TV. tay une fuñ qui koy tambalé dañu bëgg sétani seetaani benn vidéo ginnaw bi nga xamanteni ay accusation jóg na dal ci ndoddu ki nga xamanteni moy leader bi fi jité won parti bobu di Pastef té ñu dissoudre ko bëgg a dagaanoon baatu askan bi jamono ji yoon teg ko loxo mu ci mandat de dépôt foofu ci Cap Manuel di Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante révélation yu doy waar yoo xamante ni ngi koy commencé gis ci moom ba noppi ñu def vidéo bi Ousmane Sonko ci Sénégal dañoo xamul nan lañ préparé Ousmane Sonko gis ngeen Ousmane Sonko dafa lekk avance nit la koo ni ko dañoo dangereux lobby la dañ ko duggal ci lobby lobby bu bon bu haram lobby bo xam ni lobby bu mën tass aduna bi la muy ño xam ci té lépp moy tass yàq ak damaté diine l'islam te ñu bari xamné nañ li may wax sénité moy lan lépp lu bon lobby bobu mi ngi ko ëmbalé gis nga affaire casserole yi ngeen di wax o cosaan ba affaire yi góor jigéen la Ousmane sogo da fay dooleel gor jigéen aywa alhamdulilah rabbil alamin di léegi yeewu nii takk sama sarbet gis ci réseau yi Sonko neen ku nekk na fëkk kubéeru ceen réew mi yëngu ñu faal ko Macky Sall na jàll rek léegi cagga ji lesbiennes yi giwin yi ñëpp daal am liberté góor jigéen ñëpp am liberté biir Sénégal. Ousmane Sonko dafay dooleel góor jigéen man maa ngi profité wax ne mouvement ànd su euh, sàmm jikko yooyu déggoo leen ñu wax parce que la leen Ousmane leer ba tey tax ñu xam lu wér lu leer. rus nañ am nañ kersa pour wax waaye di leen wax ne leen ñoom it mouvement sàmm jikko yi ay nit ñu bon lañ ay nit ñu xaram lañ nit ñu yàq Sénégal lañ dañoo yéex a xam Ousmane Sonko moo tax bi ko xamee mënatuñ def dara mu lalu nekk ci kaw ñi nga xamante ñoo ko ngemb Ousmane Sonko protéger ko waaye wax ko benn jëf pour mu yàq itam lépp yàq Sénégal la tas Sénégal indi fi guerre boo seetloo chaque fois bu Ousmane Sonko defee sorti waxi dof lay wax waxi

li wéral li nga xam ne nii moom laa wax mosu leen koo dégg mu dem màkk du umra du aji màkk fonkul yonent bi bëggul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fonkul kilifa diine yi bëggul leen parce que xam nañ ñim lekk seen avance ñi ko ngémm euh, ñu koy suivre à chaque fois li ma xew mooy affaire Castro benn mag borom xam-xam dafa ma wax ne Ousmane Sonko

manam fexé mettre le Sénégal dans la CAO pour que mu egg fa nga xamante moy palais présidence pa bi def na ay révélation suñu déggee bu baax baax ci ay cadre Ousmane Sonko jamono jooju nak moy limay wax rek du taw ñuy fobéré ñu bëri du ñu woon bàyyi xel ci li nga xamante Ousmane Sonko mi ngi ko doon wax té su taxawee né Macky Sall du ay carte moko ko fiy té ay carte tegoon ko fi kon Ousmane Sonko da wax ay wax yu savanok deug les xam sénégalais dafa tënku ci démocratie démocratie Madame démocratie, lan libre, des libre transparence inclusif Madame suffrage universel direct Madame la majorité

Ousmane Sonko lobby yu mu signal maanaam ay nit yu bon lañu dañuy xeex d'in l'islam de xeexa tarixa te loolu mën nañ ko firndeel ndaxte si seen ay kàddu ñu ngi koy dégg kii di Ngagne Demba Touré nee na bokk na ci juróomi point bi nga xamante ne projet boobu ñu yoroon muy par projet PASTEF bokkoon nañ fi dinañu fexe ba nit dootul jël nit di ko jaamu di ko jox ay addiya nangam comme ni ñu koy defee di dem Touba di joxe addiya kii di naan sëñ Fàllu mooy sama sëriñ kii di naan sëñ Muntaxa mooy sama sëriñ kii di naan sëñ Saaliw mooy sama sëriñ kii di naan sëriñ Abdou Bara mooy sama sëriñ kii di naan euh, euh, euh, sëñ Mbay Si Mansour mooy sama sëriñ kii di naan sëriñ Mbay Abdou mooy sama sëriñ kii di naan Cheikh Mahi Niass mooy sama sëriñ kii di naan ci Laayeen yi ñooy sama sëriñ Ngagne Demba Touré nee na loolu dañ ko fiy dindi maanaam kooku mi ngi xeex tarixa yi jëm ci ba diine l'islam kenn mosu ci gis Ousmane Sonko diko xex bañ nako ba Ousmane Sonko duñ ko gis mu dem Umra duñ ko gis mu aji Màkka te am tous les moyens gis nañ fi ministre yeeg DG yi bañu ay ñom Ndiogou mbay ak ñom xëcaak ay DJ ñoo mëna dem Umra waxtuma la nak Ousmane Sonko lu tee du ko def parce que ñi mu lëkkaloon la bëgg won ben image que mom ci ñom la nek Ousmane Sonko day dolel gor jigen yaakaar ni wax nañ ko waxati ko dégg ngeen ko fofu ko nga xamante moy wa joju ba Ousmane Sonko wote li nga xamante moy tëgg ay casserole ay kay kubéeru cin mu bokk ci aada ay góor jigéen kooku daf ci kontaan ba mu ne Macky Sall na jàll na ne Ousmane Sonko su nekkee président ñoom góor jigéen ñi dañuy def xam nu mu leen neexee fii ci biir réew mi yéen a ko gisandool seen bopp kon paa bi lu muy wax dafa méngoo ak dëgg su demee ba ànd sàmm jikko yi naan dañ doon xeex maanaam ay affaire góor jigéen ñu dem ba lëkkaloog Ousmane Sonko kenn déggutu leen kon noonu ay naafeq luñ

kon yaakaar naa ne muy association bi nga xamante ne ñaari naafeq ñoo ko créé ñaari nit yu gën a bon ci Sénégal ñaar ñu gën a hypocrite Sénégal amuñu xëy amuñu gont amul dara lu ñu teg Sénégal lépp lu ñuy mbubboo rek maanaam mooy waaw diw nangam diw nangam diw saaga na yàlla diw nangam sangam alors que ay fan yi neen la fen yu tooy xep